Rewmi 24 TV. président Sonko moom je pense que message bu ñu mujjee jot ñetti fan la euh, message boobu baax na aussi nit xam ko benn mooy moom day continuer xeexam. moom nekkatul ci ay hôpital dafa bëgg a dem ñu delloo ko fi ñu ko nekkoon comme li ñu ko bëgg a téye fi ñu ko téye fi ñu ko war a téye donc yaakaar naa ni déplacé nañ ko euh, suma juumalee yóbbu ko euh, yóbbu ko delluwaat nañ ko Cap Manuel beneen bi aussi mooy wax na ni fi ñu toll nii. mooy période bi gën a crucial ci combat bi lépp luñ ci mën a def mi ngi doog a jot. donc kenn ku ci nekk loo ci deful instant bi ragal naa bu ñu fekkee une semaine dootu ko jarati parce que àdduna bu nekk day am foo xam ne yi jot na pour ñu jóg. donc taxawaay bi léegi lañ ko soxla loo xaar nag ba jaan romb ngay dóor ci watel bi jaan jaa ngi ñëw ñu ngi koy xool xam nañ ni le 17 am nañ contact ak moom et ça sera le donc ku ci nekk liñ ci man na ko ci def ci taxawaay am na ñoo xam ne ñaan lañ mën am na ñoo xam ne gis nit ñi baax yi lañ mën am na ñoo xam ne mobiliser lañ mën ñoo xam ne joxe xaas lañ mën xam ne taxaw lañ mën am na ñoo xam ne woote xëy bu ñu dara lu nit mën a def ci à de tey jëm àjjuma te lii dafa mel ni dafa ñëw rek samp bant bi wane ni lii ñu def ci pépinière bi ak ñi ñu koy defal xam ni ëllëg dañoo bëgg ñu màgg tekki soppi defar Sénégal loolu la ñuy xaar ci patriote yëpp que ni c'est le moment après dootul am sens donc